الحمد لله الذي ذي الفضل والإحسان أنعم علينا بنعم لا تحصى وأجعلها نعمة القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 di ñaan rekk euh, mboolem lu ñu fi jaamu yàlla nañu ko yàlla nangul nga itam fulal ñu ko bi jaay sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam dellu di ziyaara di ndokkeel boroom kër gi mu muy Cerno Xaamidu Baan ak mbokkam yi nga xamante ni ñoom la bokk nekkal ka ca bopp de aja ñu ma ba fa tabaarakallaahu ak mboolem asaatisa yi nga xamante ni ñoom lañ bokk ku waafe ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara waaye jaarale ko ci loxol imaam alxaaji Moussa Gueye mu tegal ñu ko ci loxol mbokkam mu baax mi di alxaaji ustaz Abdallahi Njaay ay fa tabarakallahu muy wesaale ko képp ku yeewoo ci kër gi waaye rawatina moo xam auditeur auditrice yi nga xamante ni ñu ngi ànd ak ñun ci seen émission bi ñu tuddee a taskira ñi leen koy amal ci waxtu jot ni lañu fas yéene àndaat ak yéen di ñaan rek lu ñu fi jaamu yàlla nañu ko yàlla nangul bi jaay saydu wujud sallallahu alayhi wa sallam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 ba ci Mermoz Sacré-Cœur waaye tam coon sàmb ca géejawaay notaire de voies ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla mottali yépp naka noonu itam waa amoo 6 ba 5 ak ñu ngi leen di ziyaara Malika Kër Massar ba wuñ kenn bu dee ci biti réew itam ñi teg ko ci loxol Adja Soda Fall rek mu demaaleel géew mboolem dëkkandoo jàmm ci gan bu nekk fii ci bitim réew eh, di ziyaara di leen tatagal di nuyu suñu wóllëre El Hadji Babacar Jaxam ca amoo cinq ak soxnaam su baax soosu di soxna Faatu Ndaw ñu ngi koy ziyaara waaye noonu lañuy ziyaare Ajaa Faama Njaay ca amoo cinq ak boroom këram di El Hadji Ibrahima Mbay waaye na ko noonu itam ni la ñuy ziyaara soxna ami caw ca amoo kaat moom itam ak borom këram waaye itam suñu wëllëre wu baax di suñu yaay ndey xadi faal soose ca amoo cinq ñu ngi koy ziyaara ak borom këram ak xale yi muhammad sëriñ paap ñu ngi leen di ziyaara di leen tatagal di leen ñaanal yàlla noonu itam lañuy ziyaara itam suñu wóllëre bu baax fii dëkk ci amoo cinq moom it yàlla dogal mu génn dekk ci biti réew ñu ngi koy ziyaara muy Serigne Muhammadu ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax a baax yal na ko yàlla yokk fa mu nekk waaye itam tàggat ko ba këram muy ñëwaat fekk si waat njabootam muy Serigne Coor ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax baax di ko ñaanal yàlla yal na yàlla yokku xéewal zahiran e, wa baatinan noonu itam lañuy ziyaara alxaaji Xasan Géy moom itam ca yoof feggoo kam baax moomu aja Aminata Géy fa tabaarakallaahu ak mboolem ñi fiite ci yoof ñu ngi leen di ziyaara ah mu mel ni comme ni ko waxe woon ah, tàmbale woon ko ci yéen waaye di mu doonoon cëslaay di alquraanul karim wàccoon ci weer woo xamante ne weeru màgg la ñu koy tudde sëhru ramadaanal mubarak moom mi nga xamante ni ci lañu nekk waaye rawatina ñi tollooti cam ci guddeem yi nga xamante ne moom lañuy tudde al maghfira nga xamante ni itam noonu lañuy jeexale guddeem yu màgg yooyu ñu tudde woon arrahma waaye itam ànd ak di am yaakaar di ñaan ci borom bi subhanahu wa taala mu fekkeloo ñi itam ci guddeem yu tedd yooyu ñuy tudde kon minan naar muy goreel ci safara nga xam ne dañuy wax ne koor dafay tëdde ñetti tànk bi maanaa bu dee dox dafay am ay tank tank yoy nak dañu ko teug ne ñetti tank lay doxé ñetti yoy ba ca ñeek mo doon yermandi nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala du deñ di addu di ñu ci ñaax waye di ko tassare ci doomu adama yi mo xam ci bayima yi mo xam mbollem luy dukkat ci kaw suuf yërmande googu borom bi subhaanahu wa taala mu ngi koy jàngale waaye di ko wesaare itam ci kaw àdduna bi ko defee kenn ku nekk ci ñun am ci ay qualité waaye itam am ci ay jàngat yoo xamante ni war nga ko see jële ne kot kon borom bi subhaanahu wa taala daf ma xàllal yoon kon bu fekk ni bii noonu la demee man dinaa jéema góorgóorlu sama kemtalaay kartan li ma ci man ma def ko ci kon xàll na yoon wi rek man dinaa fexe ba bu ma soxoroon soxor googu ma arrêté ko bis niki tey dinaa fexe sama xol bu yaatuwul woon ma fexe bis niki tey mu yaatu dinaa fexe koo xamante ne dama ko jëloon am lu ma ko ëmbal muy mbañeel bis niki tey dinaa dindi loolu sama xol ba mu set wecc raxas ko waaye def ci yërmande ba lu mën a ñëw rekk mu man koo supporter loolu lañ ci war a mën a jàngat ak yu bare bare baree baree bare bu ko defee itam ah nga ñi nekkaat ci guddi yoo xamante ne guddi maxfira la ndax yàlla bu la yërëmee rekk fa tabaarakallaahu nga jéggulu daf lay baal ndax itam man ngaa def safaan maanaam bàkkaar ca sanse boroom bi wara def li war ci yow muy àtte ba waaye danga koy séen ci mbaaxam jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu yeexe la ne xëy na amaana sama jaam bi kat dafa euh, jaawale li mu waroon a def walla dafa juum ba moo tax mu def naka noonu waaye du coobareem du bëgg-bëggam xëy na jamono ko njatt rek mu def lu mu warta def kon naa ko bàyyi tuuti yërmandeem jooju moom ci la lay yërëm ba ba nga defee bàkkaar ba ca sansa eh, deful li war ci yow bu ko defee nga mën a dellu bu fekkoon ne mer moo taxoon nga jëf ja bàkkaar boobule mer ma bu giifee di nga xam ne kat ndekete man li ma def nii du noonu bu fekkee xuloo la woon itam kazalika bu xuloo ba noppee ba nga dal di nga xam ne ndekete man li ma def kat du noonu waaye bu doonoo ni xeex la itam yaag sa mbokkum jullit itam ngeen dem ba dal ñi àtte leen kenn ku ci nekk toog yedd sa bopp xam ne kat ndekete man li ma def du nii waaye njuumte la kon dénnéerlu googu mu am moom borom bi subhanahu wa taala nga xamante ne yàkkamtiwul dara daf lay bàyyi rekk ko defee sa xel dellu siwaat ngane kat man juumoon naa bis sàngam wala heure sàngam wala dat sàngam bu ko defee borom bi subhanahu wa taala boo ko jéggaloo mu dal di lay jéggal waaye la waroon ca yow bu ko defoon ca sens rek amaana doo fi igsi bay mën a tuub te bu boobaa itam dara du ko ci fekkal kon njéggal googu yàlla defal la ko waaye itam mu doon jàngat ci yow nga jéem a góorgóorlu sa digganteeg sa boroom di ci tuub waaye jéem góor góorlu sa diggante digganteeg sa moroom ba àq yi dox sa digganteeg ñoom nga jéem koo matale ba mu set wecc dinañ koy faral di wax ne yowmal xiyam yàlla nee na yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal jaami ne leen man moom ku bari yërmande la waaye itam ku bari mbugal la sama yërmande ku ko ku moom da ngay jàpp ne am benn safaan muy mbugal waaye itam sama mbugal itam ku dajeeg moom da ngay jàpp ne man masumaa am benn yërmande waaw waaye nee na heureusement nag yërmande ji moo jiitu ci jaamam yi muy sabaqat rahmat yi xadab yi ca la ko ne ya an ya ana alxafuru rahim waaye nag wa anna azabi huwa azabul ali te bu ko neexoon ñun ñi koy tooñ ñun ñëpp ëllëg yowmal ñëw dajeeg moom mu ne yéen ñëpp baal naa leen mboolem kuma koo xam ne tooñ nga ma baal naa la yërmandeem ëpp na loolu te bu ko defee kenn du ko ne pourquoi jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu man na ko sañ na ko kon loolu du kaa suñu digganteeg moom waaye mbiri fan la suñu digganteeg suñu morom suñu borom dafa maanu waaw xëy na nit man ngay bokk ak moom lenn eh, ngeen jote ci kaneen ko kenn ki nga bokkal moom itam jël wàllam baale waaye yow est yow man ngaa baale léeg-léeg da ngay séen ku ne lu ñu bokk kenn ki ne ah man de bu fekk ni bii man la rek sama wàll baale naa ko kooku moom la concerne ci moom la neex bu ko neexee tooñ gi moom lañ ko tooñ mu baale yoonu ma sàmba nekku ci yoonu ma demba nekku ci waaw mais ki ñu tooñ mu leer na ko ne moom moo moom àqam mu soxla ay àqam ñi bëgg mu baale mu lànk ne duma baale loolu war nañ ci bàyyi xel waaw te ëllëg yowmal xiyaam ay tuyaaba dafa dafa dul doy lu ci waay yor doo ko gëme ndax li koy firndeel mooy am dafa amul dafa amul delluwaat di liggéeywaat bu xësee baax amul delluwaat di liggéeywaat bu xësee bon waaw tey bu fekki di suñu àdduna bii sam xëy bu naxaree mën ngaa góorgóorlu fexe sam ngoontu neex waaw sa ngoont mën nga fexe mu neex la la la rëccoon ci suba gi nga dabantal ko ci ngoon gi léeg nga seen ngoontu mu ñëw far dàq am xëy danga ko fii gis waaw man nga ko walla li la rawoon ci sang ndaw itam nga góorlu bi sang mag nga jéem koo mottali yooyu yëpp gis nañ ko fi waaw mais ëllëg nag yowmal xiyaam loolu amu fa dangay gis rek ñiy fay li nga jëf rek loolu moo fa nekk ci ngay ngéejoo nag ne yàlla sama jëf ji jii ma doon jëf nekkati ci àdduna dara baaxu ci léegi li ma bëgg daal mooy nga delloo ma rek ca àdduna bu ko defee ma jëfaat jëneen jëf ju bokkul ak jëf jii nii ndax lii nii dara baaxu ci waaye yàlla ne baat boobu yaa koy wax rek waaye na la leen ne loolu mënula am waaw la ñuy jëf kay jëf nañ ko ba pare fii moom bisu fay la rek kon nag bisu fay amul liggéey moo tax nag kenn ku ci nekk da ngay soxla sa ay say tuyaaba loo xamante ne doomu aadama yi yoreel nañ la ko doo ko bàyyi muy dem boo gisee borom bi subhanahu wa taala di àddu ci alquran di wax naan yowmal xiyaam e, kenn ku ci nekk dangay daw sa morom waaw ñi jàpp ne xëy na bu dee mbokk gu xaw a sori sax loolu mën na yenu na yenu na maanaa yàlla ne déedéet mbokk gi xattaa ba li muy jige jige këla gën a jige kooka ngay gën a daw mu indi ci firnde muy lan doom ju xës gis waajuram daw ko wala jur wu gis doomam daw ko wala diggante jëkkër ak jabar ku ci njëkk a gis sa moroom da nga koy daw te xoolal fii ci àdduna kenn ku ci nekk loolu ngay tiitaroo sa njaboot sama doom sama soxna bu dee yërmande ñoo ko ëpp ci man nangam ak nangam xattaa ba ci sa papa tey nga gis sa papa samp saw gis la samp ku ci njëkk a gis sa moroom rek yaa ngay làqatu sa moroom te xoolal fii ci àdduna bi ni ñuy bëggantee diggante waajur ak doomam ni ñuy soppantee diggante soxna ak boroom këram tey bul bi albatiku ba ku ci gisoon sa moroom rekk di làqatu ñu ne lan moo waral nga koy làqatu te ci àdduna bi yéen a bokkoon même benn lal di fanaan say doom yaa leen doon nàmpal di leen teg ci sa ginnaaw gi di rogganti papa ji lu lu lu jekk ci moom mu dem jënd lu bu dee feebar sax moom na ko na feebar moom way jur wi te xale bu wér nga am yéene jooju tey bis jot rek nga gis sa morom fas yéene waroon a daw laxasoog moom tàppoog moom xanaa nga gis ko di làqatu lu ko waral mooy rekk kenn ku ci nekk jàpp nga ni kii lim ma jige woon moo tax mu leer na ma ni damay ragal mu ameel ma àq walla ma ameel ko àq te àq boobu lu wér wóor mooy bu ma ko baalul dama koy fay te li ma koy faye mooy samay tuyaaba lañuy jël jox ko te sama tuyaaba yi yi ma ci yor doyu ma moo tax te bu fekk ni biir doyu ma buñ ma àttee ñu may yóbbu kërug safaan nga te bëgguma faa dem lee ma gis ne baaxul aljana kay laa bëgg a dem moo waral ngay làqatu ñooñu nga lay jigéñe woon nga jàpp ne ñoom kat amel nga leen àq te seen àq yooyu buñ la ko baalul fayeku la dañuy jël say tuyaaba jox la ko waaw yawma yafirul mar'u min axiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi gis nga ko lu ko waral li kulli imri'in ma yawma idin sahnun yuxnii yàlla li ko waral mooy kenn ku mu ci mën a doon muy papa ji muy yaay ji muy doom ji jëkkër ak jabar ñoom ñépp ku ci ne sahnun yuxnii da nga am mbir mbir mu la doy sëkk dàll ak tubéy lépp waaw ku ne sa bopp nga fa tal waaw defee ñi bàyyi ci xel ko defee àq yooyu jéem fexe eh, dindi ko balaa ngay wuy ji sa boroom ndax yàlla def ciy maanu ko defee moom lañuy wax ni ko yonent alayhi salaatu wasalaam waxee neena guddi aljuma bu jot ak altine dañ koy gaaral dossier jaam bi nee na mu xool ah yi kat dossier diw la mu ngi dëkk kër sàngam bërëb sàngam doomi diw ak diw moom de semaine bi lii ak lii la fi jëf nee ñu xool bu gisee lépp lu baax mu sant yàlla ñu jël kase ko note mu dem mu dal di yéeg nee bu xoolee gis si ni lii kat ak ah, bàkkaar la boo xamante ni mënu ko woon a jéggulu boroom bi ci yonent bi si ak mbaaxam mu jël ko tinul la si diggam ak boroomam subhaanahu wa taala ndax léeg-léeg nga yor fi dossier boo xamante ne da lay ëpp doole yow mënoo ci dara nga ñëw jébbal ko sa kilifa sa kilifa googu nekkaat ci moom it mënu ci dara mu dem jébbalaat ko kilifaam noonu lay yéege ba ca kilifa gu mag tey bari na fi ay dossier yoo xamante ni tey e, ki ki jiite réew mën na ko jël baale ko waaw te yoonu ma sàmba du ci nekk yoonu ma demba du ci nekk mais ñi muy jaar ci seen diggante ñoo ñooñu dañuy dem ba tële ci mais buñ demee ba ca njombaxtal ga moom moo yor cëggal guyam lu ko ci neex mu def ko ci ah joxe na ci misaal nee na am na ci dossier yoo xamante ne dañ koy jël teg ko duñu ko laal waaye buñ ko yëkkatee àdduna bi tukki wax na dëgg na ci yoo xamante ne kenn du ko laal dañ koy bàyyi noonu yent bi nag noonu la def jéggulu bu nekk ko lii dossier diw la nee na mu jël ko xool bu gisee mu baax mu sant yàlla bu gisee naka su noon noonu ah mu jéggulu borom ba keroog borom bi di ko jéggul mais bu jëlee dossier fekk ca ne kii kat am na mbokkum jullitam mu mu meroon lu ëpp ñetti fan du ñu wax xuloo tuddanteetuñ ñoo bokk kër gi kenn du taas sa moroom mais meroo gi am na daal ëpp na ñetti fan te jubboowuñ seeni dossier bu dikkee teg ko ci taabal Yonent bi sallallahu moom da ko dul xool sax bay bay gis ne lii baax na wala baaxul xam nga kii tinu mooy ki ki ubbi dossier bi xam li nekk ci biir gis ne lii baax na lii baaxul lu baax mu sant yàlla lu baaxul mu tinu mais nag ki nga xamante ne nag dafa xuloog mbokkum jullitam lu ëpp ñetti fan kooku seeni dossier buñ ko indilee moom yonent bi da ko dul xool wala loolu mbokki kenn ku ci nekk war na ci bàyyi xel te tey ñaata ci ay nit ñooy meroog seen mbokkum jullit lu ëpp ñetti fan léeg-léeg nga dégg ku ne ba ma ba ma gëjee tudd diw de ëpp na at kii ne ba ma meroog moom de ëpp na ñetti at kii ne ba moom de ëpp na fukki at te te te taxawooguñu ngir fexe meroo googu deñ xanaa kay ba yowmal xiyaam noonu la koy continue kenn ku ci nekk suur sa morom te àq yooyu doon loo xamante ne war nga koo jox waaw yonent bi wax na ko daganul nee na ka ca gën ca ñoom ñooñu mooy ki njëkk a taxambali nuyu sa moroom mais yow nga koy jaay du ma ëpp fulla dina xam ne ëpp ma ab judd dina xam ne faalewu ko nangam ak nangam kee jàppale kee jàppale waaw mu continuer bu ko defee saytaane moom gën a kontaan ne man li ma bëggoon am naa ko ñaar ñee meroon ñoom waxatuma si ñoom ñoom eh, noppal nañ ma léegi kay naa dem ci ñi nga xamante ne merowuñ ma def fa sama liggéey waaye ñaar ñi xas nañ mero jeex na ñooñu moom sonalatuñ ma ñi ñi ñi ñi bàyyi ci xel ak ñi nga xam ne dañuy gëdd seen ñaari wayjur duñ xool seeni dossier ñi bàyyi ci xel ak ñi nga xamante ni tabaarakallaahu dañuy jël loolu ñuy tuddee sàngara di ko naan moo tax eh, ci biir weer wi am ci guddi goo xam ne moom la ñuy tuddi guddi laylatul qadr gis nga ko moom itam ñeenti ñooñu kenn duñ xool seeni dossier bokk na ci itam euh, koo xam ne dangay jëfandikoo sàngara walla boog nga te tuuboo ko ndax borom subhaanahu wa taala lu mu bari bari boo ko tuubee mu jéggal la ko ba mu des bokkaale ko waaw mooy xool lu ko neex nag mu baal la ko waaw bokk na ci itam Euh, gëdd sa ñaari jur waaw gëdd sa ñaari jur kooku ay dossier kenn du ko xool te yàlla buy jéggali du ko du ko jéggal waaw ak ñi nga xamante ni dañoo meroo kon yooyu mu doon yoo xamante ne kenn ku ci nekk war na ci bàyyi xel fexe raxas sa xol fóot ko ba mu set wecc ba gàkk-gàkk yooyu tilim tilim yooyu koor gi nga koor mu ñëw raxas ko ba mu set wecc ndax loolu rek lañ ci bëgg muy taqwa di ragal yàlla mooy fexe def li la yàlla digal waaye itam bàyyi li nga xamante ne moom la la tere ko defee ñi bàyyi ci xel bu baax nekkate kon euh, njéggal googu ñi nekk ci kenn ku si nekk jàpp sa moroom nekkat bu ma la amelee àq baal ma ko mu baal la yow itam nga lu ñi nga xamante ne ñoom nga yoreel àq bu ko defee àq yooyu bu deñee ci suñu biir rekk suñu boroom moom ku bari yër mënde la te bu boobaa nee na eh, jaam bi eh, bàkkaar bi muy def eh, ba sa ko safaan mu dem ca këru safaan ga noonu mu fay deme nee na borom moo gën a metti ci moom waaw ni mu lay mettee yow yow jaam bi ko def nee borom subhaanahu moo gën a metti ci moom jëm dem nga nga fa dem kon bëggul nga dem fa moo tax mu ñëw tegalal la yoon aaral la ko ne yoon bii boo ko toppee feeg wàccoo ko incha allahu da mucc ci safara aljana nga jëm waaye yoon bii bu fekkee ni bii danga nga fee jaar te wàccoo ko itam kërug safaan nga nga jëm di la contrôler xool la bàyyi la ak sa xel ne la demal léeg-léeg nga dem ba bëgg aw ci yoonu safaan mu ne la du foofu de bàyyil te pourtant mënoon na laa bàyyi rek ginnaaw bi mu la joxee sa xel jox la say bët ak lépp bàyyi la nga def loo loo def baax na mais léeg-léeg day dem ba nga ba nga nar a def safaan mu ñëw gàttandu la ne la foofu nga nar a jëm baaxul te boo góor góorgóorloo walla nga xaw a sàggan ba nekk ca sax lawar ca yow du ko def ca sansé muy bind bàkkaar baagee ca xew dinañ toog xaar leen ne kii xëy na ak yàkkamteema tax walla ak ñàkk xamama tax ba mu def bàkkaar bi boo tuubee rek ca sansé mu gaaw effacel la loola nga defoon remplacer le ko ay tuyaab kon moo gën a taxaw ngir jaamam bi mën a baax waaye jaam bi na fekk nag moom moom mu xam boppam waaye itam na fekk itam moom mu xam moom mooy kan mooy kan ko defee ñi bàyyi ci xel bu baax nga xamante ne fukki fan yi njëkk yi ñi doon jàngale yërmande yërmande jooju yàlla fekk def ko si ñun waaye ñu koy jëfandikoo waaye itam jéggal gi nga xamante ne ci la ñu nekk itam muy fukki yi ci digg bi ñu jéem a góor góorlu itam ah fexe ba kenn ku ci nekk rek bàkkaar boo am nga jéggulu ko sa diggante ak sa boroom waaye itam ak sa diggante ak sa moroom bu ko defee itam di ñaan yàlla fekkewaat yeneen fukk yu mujj yi nga xamante ne bu la yàlla yërëmee ba nga defoon bàkkaar nga ñëw tuub ko mu jéggal la kon dara desul rek nga gore ci safara ñu booleel ñi ñun ñëpp goreel ñi ci safara dugal ñi aljana yàlla nañu ko yàlla defal bi jaayi saydu wujud sallallahu alayhi wa sallam guddi googu nga xamante ne moom la ñuy làmbati muy guddi laylatul qadr yàlla nañu yàlla dimbali dajeek daj ñi dajeeg moom ba lépp lu ñu ci jaamu rek yàlla nangul ñu ko ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon dañ koo jël nag làq ko ci biiru weer wi xamuñu fan la dañ koy làmbatu rek kon boo bëggee nopp li yoo fexeel guddi goo jot rek def ko muy sa guddi laylatul qadri incha allahu rek amaana bu weer bi jeexee rek du ñàkk ñuy dajeeg moom kon lii mooy li nga xam ne moom lañu cërale woon ci waxtu yi mbokk yi mu ngi ñuy junj li nga xamal ne mat na fa tabaarakallaa waaye dañuy teg suñu baaraam foofu rek ña xam ne lu jiw jeexul jugu fa lu jub ci wax ji rek ñi xam ne mbaaxu yàlla la waaye lu ci dëng lu ne rek matadik doomu aadama ñu ngi leen koy jéggulu ginnaaw bi ñu ko jégguloo borom bi subhaanahu wa taala wa ahiru daawaana an alhamdulillah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa